assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki xadratul malikiya ñoo ngi leen di nuyu di ziyaara di leen bal xaq di balu xaq di sàkku ci yéen itam ngeen balu xaq bu baax a baax e di dil siwaat ci sunu burdatul madiix fi nga xam ne fi lañ ci amoon ak Busiri ñi ngi war dugg ci nag alfaslu alxaamis fi mucjizaatihi sallallahu alayhi wa sallam faslu juróomeel bi lim cee jàngale mooy kiimaan yi nga xam ne tabaarakallahu moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla baaxe woon ko ko mu ko di ci lottuloo ñi nga xam ne ñoo ko mag te bokkoon ak moom jamono ak ñi maaseeg te bokkoon ak moom jamono ak ñi ñëw ginnaawam te bokkoon ak moom tabaarakallaahu jamono euh, loole la ci góor gi bëgg a nettali as lëf nettali ñu ko ci sallallahu alayhi wa sallam ci may goo xam ne yàlla mayoon na ko yoo xam ne daal dalay wóor lii nit kese kese kese mënu ko dégg nga jaat li daawatihi l asjaaru saajidatan tamsi ilayhi ala bila qaadaami ma ngoog boo xoolee nag al asjaar jamu ko kon loo ci njëkk a déggee jamu sajar la loo ci njëkk a déggee nga bàyyi xel ne du benn yoon la mbir mi am du benn yoon la mbir mi am te diggante sajar ak naj mu it nga bàyyi xel ne tabaarakallah am na différence ak nabaat ak naj mu yooyu yëpp boo demee ci téere yi dañ koy différenceal wane sajar mooy loo xam ne dafa am ab date nañ nga eh, tabaarakallaahu najmu nag mooy loo xam ne amut ab date nabaat nag mooy loo xam ne dañ koy ji bàyyi ko ci luy sax daal day bàyyi ko ci jibu daal nga ji ko nii muy sax comme saari gerte yeeg saari dugub yeeg yu ni demee yu ni demee bu fekkee naj mu ne nag mooy lépp loo xam ne rek ñaari day faral di law ci suuf ak lu ni demee sallallahu alayhi toog na ba mu yàgg mel ni ku jaaxle ci gaa yi ñàkk gëm gi ñu ñàkk gëm ak lim leen woon yëpp ak nekk gi mu nekk ci dëgg jibril na ko hey jëru ko kaay moon la kéemaan wool garab gee soo woowee garab gi garab gi dina déparé fa mu nekk ñëw wuyu si la seede ne yàlla yàlla Moustapha woo garab gi garab gi deqatiku bu mu agsi ci moom rasulullah ka xas bu xas bu doy na sëg te du benn boobu dox na ba mu yàgg tabaarakallaahu benn aaraabi yu dajeeg moom rasulullahi jàmm santeeg moom ba pare yenent bi ne ko te ngaa ñëw ci li ne mu ne ah <laughs> dëgg nag dafay tegewu ci kaw dara luy wane ne yeneen la daal laa bëgg nga xamal ma ko fii léegi mu nekk loo bëgg ma wan la ne pour man nga xamee ci ne man yeneen laa waa ji yaakaar ne bu waxee yeneen bi loola garab gi ci moom day jafe mu ne ko garab gi laa bëgg mu dekkati koo fa mu nekk ñaadam ñaadami ba ne groupe ci sa suuf ne yow yàlla la yónni soo defee loolu daal ma nangu rasulaay ne garab gi jugal ci sa ndigalal borom hmm. garab gi deq ko ñëw utal si sallallahu alayhi wa sallam waaye ji ne bërit ba ko daw Mustafaa ne ko ciix jàpp na ko foo jëm xanaa laajoo ko woon garab gi ñëw tabaarakallaahu toroxlu ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa ji it daal di seede ne maam garab gi seede ne yàlla moo yónni yonent bi yonent bi dawal yàlla la waa ji it mooy tuub bëgg a sujjóot yonent wax ko naka law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha loolu lay nettali fii moo tax góor gi ne jaa at ñëw na al asjaaru garab yi ñëw nañu jëm fan li daawatihi ci woote yeneen waxtu waleen yonent bi sallallahu woowee pour lan jëm ñu ñëw seede ko lan mooy kan saa ji deseen mbir moom ñuy woy toroxlu lunku ndax sujjóot la comme ni ñuy sujjóotee walla dañoo lunku wala dañoo womatu foofu gars yi am nañ ci wute wuute saajitan mbir moom muy aji toroxlu rek tabaarakallah sujud boo ko defee toroxlu nga toroxlu it boo ko defee toroxlu nga tamshi ma ngaa dox ilayhi jëm ci Moustapha moom garab gi bilaa xadamin te ànd te ndëggu xaw ma ala saakin ci peer mooy dafa yeel yeelu garab gi noonu daatu <laughs> garab gi bilaa xadamin te amul ndëgg lu muy doxee comme ñun ni ñuy doxee nii ci ndëggu nga xam day am ay baaram ay nangam-nangam tabaarakallahu garab gi moom dafa ñëw rek mel ni mel ni mel ni ah, la ci suuf buut ba dafa dagg foofa mu des date bi date bi commencé départ ñëw utal si rasulillahi sallallahu alayhi moo tax mu ne tam suy ma ngaa dox moom garab ga ilayhi jëm ci sallallahu alayhi wa sallam ci yeel wala peer bilaa qadamin du ànd tëg ndëggu comme ndëggu loo xam ne tabarakallah jàppal ne laa googu nag dafay ñëw rek li taakiidi rek ngir feddale rek ka annama sottarat satran lima katabat furuuha min badi l xatti bi laqami léegi nag muy nurale di wane na garab ga nag ba muy ñëw ñëw na ci ñëwin mu doy waar sax nag ndax bànqaas ya fa muy dirikoo noona di ñëw fa mu rëdd dafa mel ni mbind la moo xam ne ma nga jub xoj rafet lool bokk ci mbind yi gën a rafet ci mbind yi hmm? li xew na ca ka annama satarat dafa mel ni garab ga dafa rëdd moom garab ga la ay rëdd mooy dafa mel dafa bind ay bind rek ah. xam nga satran daanañ ko def pour booy bind bëgg mbind ba jub eh, loolu da gis naa digi ko gis naa ko gis sax fàtte woon naa loolu sax man <laughs> ah jël benn kayit def ci rëdd ay rëdd pour tekki li ci natt mooy satran dafa mel ni rëdd satran ay rëdd lima kataban ñeel la nga xam ne bind na ko furuuha ay bànqaasam min badil xatti tukkee ci gën jaay yéeme ji bind bi laxami dégg nga maam ca digg yoon wa nga xam ne ca la doon dirikoo di ñëw di usul si sallallahu alayhi wa sallam kon lii xew na ca garab ga waaye du loolu rek xew de mislal gamaamati anna saara saairatan taqi xarra watiisin lil hajiiri xami Busayri ne bokk na ci kiimaan yi nga xam ne yàlla defaloon na ko sallallahu alayhi waaye bàyyi xel ne mu diggante mucjisa nag ak irhaas bokkuñu mooy bépp kiimaan boo xam ne dafa daan feeñ avant yàlla di ko yónni kooku irhaas lañ koy tuddee mooy fondement cin bu nar a neex bu baxee xeeñ mhm. <laughs> waaye gannaaw bu ñu ko yónnee nag bépp kiimaan boo xam ne gis na ko fi moom sallallahu alayhi wa sallam jàppal ne kiimaan booba moom mujisa lañ koy tuddee kon ñaar yooyu foog mu am tuuti teqale te nga ne ba mu tollee di yóotu boori ñaar fukki at ak nangam manaa jëm boori vingt cinq ans àndoon naag jaamu Xadija ba bu ñuy wax may Maysura yàlla boole ka aw niir mu di ko keral saabu tàngoor wi taree lool lool lool lool lool muy benn kooku it ci kéemaan yi la bokk ba mu amee fukki at ak ñaar wala ci iraas yi la bokk fukki at ak ñaar ànd ak bàyyi taxam ñu ànd di dem voyage pour mu jàngal ko liggéey ak ko ci mbir yi ba mu demee départ rek yàlla boole kaak ñaari malaayka ñu koy keral di ko niiral su demee niir wi dem su taxawee mu taxaw ba labbe boobu ñoo wax jirjiis te ñu gën ko xam ci baxiira jàngoon na ci seen téere na yenentu aakiru samaan day tey lay génn ànd ak bàyyi taxam jëm saam waaye nag non seulement juif yi ci seen bopp daañu ko jéem a koj pour jéem ko éliminer def attentat ci kawam jirjiis ba mu yëgee loolu nag ci la wax bàyyi tax bi naka gaawal dellu waaye li ko ci ñor rek ba mu leen woowee di leen def defal ay teraanga ñu bàyyi sallallahu alayhi wasallam mu xool nit ñi ba ñu ñëw niir yu toppul kenn ma nga taxaw fa mu taxawoon ba mu vérifié ba xam ne am na kuñ fa bàyyi mu ne nañ ko woowee ci gàttalu xisa ka ko wooy ba mu départ te Moustapha départ rek comme na ko Cheikhul Hadj Malick nettalee rek tabaarakallaahu niir yu départ ba mu ñëw mu nekk ko noo tudd mu nekk ko Mouhamad mu ne ko waaw nii rek la mën demee daal di sëgg foon tabaarakallaahu ci xisa yu gudd waaye nag nañ doy la <laughs> tabaarakallaahu la des nga téye ko ci ba ca xilaas ba moo tax mu ne ka annama ah ah aywa annaasa mislal xamaamati comme niir wa naka la kerele woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku it ci mucjisaam yi la bokk annaa saara nu mu mën di doxee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek niir wa saayir sin aji dox la ànd ak moom su doxee mu dox su taxawee mu taxaw te taqiihi nga xam ne aji fegal la ko dana ko fegal xarra watiisin tàngooru jàmbaraay yi mooy tàngooru xeer yu sew yi lil yi ci njolloor gi xam yi bi nga xam ne aji tàng la jër jër jër jër sallallahu alayhi yooyu noonu lañ ko doon fegalee yooyu ne aqsamtu bil xamari lmunshaqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabrurat yi Muhammadul Busiri nee na maa ngi waat ci weer bi ñu ne ko déet góor gi man kaana xaalifan falyahlib billaahi aw liyasmut góor gi da ngaa man xalafa bi xayrillaahi faqad asraka xanaa <laughs> kon nag dafay aajowoo déggin ci giñ gi mu giñ ndax yenent moo ne képp koo xam ne danga giñ ci lu dul yàlla bokkaale nga yàlla te Abdullah ibnu Abbas daana wax ne ma ci yàlla te bàkkaaru moo ma fuuf maa la may giñ ci yàlla tudd dëgg moo ma gënal fuuf may giñ ci yàlla may giñ ci lu dul yàlla te mu wóor ma la may giñ sax dëgg la xoolal ma loolu hmm? léegi nag ah tabaarakallaa day am foofu ay natale kon maa ngi giñ nga jàpp ne jàppal ne dafay jëlee mu daaf mi bàyyi fu mu daaf ilay maa ngi giñ bi rabbil xamari maanaam ci nattale ci yàlla mi nga xam ne mooy borom weer bi ci laay giñ de hmm? bi rabbil xamar am na ñu ne déedéet arab daana waxee noonu suñ daan wax namm ak fedd li ci seen biir wax dañ ciy tudd loo xam ne ci biir wax ji nii ci kaw nii day nuru ngiñ pour wax ji gën a dëgër li gi gën a dëgër waaye du ngiñ du ngiñ kon loolu it foog ñu bàyyi ko ci xel bu baax a baax doonte giñ ci lu yàlla ñun ñëpp xam nañ ne daganul waaye am na ñu ne Busiri sax ci boppam moom Shaafi'i la mazhabu Shaafi'i la nekkoon te mazhabu Shaafi'i nag ñoom aaye luñ loolu am na ñu wax loolu de am na téere yu ko bind <laughs> waaye daal ak samtu maa ngi giñ ak a waat bil xamari ca borom weer wa weer wi nga xam ne moom lañ ne woon tàcc xar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam téere yi dañ lay wax ne aba jahlin fu ne dikk na fa rasulullaay gaar ko fa pour bëgg ko daaneel ba mu sus nag mu gisee mbiru yonent bi sallallahu alayhi moom gën a avancé avancé bu garaaw dafa bind benn leetar yónnee ko ci Habib ibnu Malik bi nga xam ne moo nekkoon chef de wu Saam naka li ma lay xamal feeñ ne ci ñun benn waay boo xam ne nee naay yonent laay waaye ñun lu ñu gëm jabarkat la te dafee woote njabarkat bu dul wax lu dëgg la bu fekkoon jabarkat buy wax luy dëgg la sax mu tane waaye jabarkat la boo xam ne li muy wax yëpp lay safal non seulement yemu fa dafa woote ne yàlla kenn la woote fi diina yu bees moo yaddaci rabban waahidan wa diinan jadida yemu ci sin yàlla yiñ ñu fi sampoon ŋàññe na leen ñun nag côté bu ne jaar nañ ko lépp luñ fi nekkee woon daal weddi na ko nag comme yow dëkkuloo ci dëkk bi xaw nga ñu sori dañu bëgg na nga ñëw affronteel ñu ko am question yoo ñu ko nattul ba xam Malik wala Habib ibnu Malik départ te cortège mu ànd ak fukki nit ak ñaar ñanga ca ba mu demee ba jub Màkka ci la dajeek Abu Jahlin indil ko ay kado yu bëree bëri pour nag nu muy affronter sallallahu alayhi laaj ko dégg nga Abu Jahlin na ko soo demee dangay laaj yenent bi naka la ba mu ñëwee dajale waa Quraysh yëpp ne leen waaw bani Haasim waaw dama leen di laaj seen waa ji moom avant lii muy woote nii xamoon ngeen ko ci dëggu avant muy woote lii wala déet ñu ne ko ñun kay wax dëgg yàlla al amin lañ ko tuddee woon nag moom kay xanaa ba mu màggee ba am 40 ans rek ci la commencé woote woote ci la commencé wax lu ne ñun daal xamuñu loolu ñun Habib ne te indi leen sallallahu alayhi ñu woowale ko sallallahu alayhi wa sallam yenent bi ànd ak Seydina Aboubacar sol mantom bu xonq bi kaala woo kaala gu ñuul gi Aboubacar nekkee ci ndeyjooram Khadija nekkee ci gannaawam waaye moom Habib ibn Malik ba mu gisee sallallahu alayhi wa sallam ak hayba bi nekk ci moom ak taar bi nekk ci moom ak wegel gi mënul téye boppam dafa jug màggal rasulullah jox ko loxo ba yenent bi toogee mu ne ko coow li bëri na de coow li bëri na de coow li bëri na de yeneen bi ko waaw mu ne ko waaw nag coow li bëri na waaye léegi yow lu ci sa gis-gis mu ne ko waaw yeneen yi fi daan jaar yi dañu indi kiimaan de yow nag dañoo bëgg nga indi ñu kiimaan yeneen bi ne ko ban kiimaan nga bëgg mu ne ko dañoo bëgg nga sool jant bi léegi génne weer bi léegi rasulullahi daan ne loolu yomb na yàlla jibril na dareet naka jant bi ak weer yëpp ak sa position loo ko wax loolu lay def yeneen bi nekk d'accord est-ce que su ma ko defee da gëm mu ne déet mu ngi yombee noonu lu dul boobaa it da maa wax li nekk ci sama xel ba pare ma dóor di gëm dangay xaar weer wi wax ma li nekk ci sama xel yeneen bi ne soo demee sa kër am nga fa ñaari doom yoo xam ne dañoo handicapé bët yi mënuñoo gis tànk yi mënuñoo dox. loxo yi daal dañoo handicapé te soo demee nag da leen fekk ñu mën a dox mën a gis mën a lekk mën a def yëpp ah ba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee lii bi ñaan yàlla su sool jant bi jant bi soo mu wàcce weer yi xar ko tabaarakallaahu ñëpp gis ko mu ne ko yenent bi teel bala maa nangu daal foog ma dem ba gis sama gone yi de ba mu demee ba gis gone mi nag doomam yi ne ko ñun kat bàyyi ñun mënatuñoo jëflanteeg yow lu dul dangaa gëm bàyyi ni leen man ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abu jëlin yëgloo na ko waaw da ngay gëm tappalekat bii rek waxi dóorkat bii ngay gëm nii nii nii nii nii rek te fekk na moom ba muy jub kër ga rek la ñaari daw doom yi daw ko dogale ko gàttandu ko waaw gàttandu ko après nag ci la jël teraanga yu gudd gudd gudd bari bëri sëf ko ci ay gileem nañ dagg xisa bi foofu mu indil ko yonent bi saa salaam takk ga ci Abu Jahl bëggoon a takk loola yeneen i mbir la <laughs> waaye comme gàmmuñ nekkuñ ci gàmmu moom lañ koy def comme junj nañ la xisa tuuti rek nga xam loolu ci iqtarabati shaaban shaqal qamar kon loolu moom alqaanaka nettali mu leer nañ ak maa ngi giñ bil xamari ca weer wa almunsaqi badi ba ñu xotti xar ko bi maanaam inna lahu ñeel na ko moom sallallahu alayhi wa sallam nisbatan ak nuróole ci xotti gi ñu xotti weer yi min qalbi tukkee ci xotti gi ñu xotti woon dégg nga maam xolam ba ba wala min boobu wala min qalbi yi bi maanaa bi qalbi yi rek dafa yor maanaa ba ci xolam ba maanaa xam nga comme moom lañ fi xotti loon xolam opeere ko ba mu amee ñaari at ñaari weer bañ koy yónni bañ koy rañaane moom it la fi yàlla jagleel mu mën a am xarug weer mu nur la xar ga mu xaroon weer ba ak xotti gi ñu xotti woon xolam la nag loo xam ne maa ngi koy def mabrul xas mu nekk ngiñ la ñu baaxe loo xam ne daal tabaarakallaahu ragaluma ci ak teñu wa maa xawal gaaru min xayrin wa min karamin wa kullu tarfin min al anhu ami sallallahu alayhi wa sallam keroog ba nga xamee ne ala quraysun bi daari natwati tamaw xaw fa rasuli wa najjun bi xisbihimi aha Quraysh ba ñu riño seen riñoo yu seere yooyu ba d'accord ci dañuy rey sallallahu alayhi wa sallam teg seeni dil yëpp pour kàmbal ko ba dara desul nag lu dul pour mottali pexe ya yàlla xamal ko yonent pour mu génn ba mu génne it nee na ko bul def direct diina demal ca xunti ma nga xaar di ma foofa ba ma joxal autorisation pour nga mën départ foofa ba mu départee dugg ca xunti ma nag yéeféeri màkka yi ci gàttal topp nañ ko topp topp topp topp topp topp topp topp topp topp ba ci xunti mi mais mënuñu gis dara waaye daal ñaaw nañu njort ne fii moom fi la war a ne ak na Seydina Abubakar risque yi mu jël pour dugg ca xunti bañ koy topp ba foofa nag ah ku demee ni Umayya tamit nu xalaf na leen inna fiha al ankabuta akla min milaadi Muhammad li mu bëgg ngeen xam na ko am na fa jibari tànk boo xam ne moom ak maami Moustapha kon yii moom teg leen ci suuf Abu Jahlin moom wang-wangal fu ne dem dikk ñàkk lu moo def génn sawee ba joxoñ ko ca biir kuntima di saw Seydina Abubakar wakku Moustapha ne ko xool rek li mu def mu te buñ ñu naroon a gis sax yàllaa ngi nii indi na fi benn gaal goo xam ne ak xottil ñu fi génn géej goo xam ne suñ ñu naroon a jàpp tey ci la ñuy dugg loole moo tax mu ne womaa la nga xam ne xawaa làkk na ko alxaaru xuntima wala mësul làkk alxaaru xuntima min xayrin ci ku baaxee ni yënant bi min xayrin ci ku baaxee ni lool ni yënant bi saa nga xam ne fu baax yam fa la yam waa min karamin ak ku teddee ni Aboubacar tabee ni Aboubacar kunti musu leen a làq ku mel ne ñoom te yéen daana wax ne li ma jariñoo ci alal Seydina Aboubacar musuma kaa jëriñoo ci alali kenn daana wax ne Seydina Aboubacar boo jëloon ngëmu yàlla xeet yëpp nga teg ko ci balaas teg bu Seydina du bu Seydina Aboubacar watat leen ngir jeex ku mu jeexoon tàkk ci digganteem ak boroomam wa kullu tarfin bépp petu bët am yi aji gumba la nel ku faari bàyyi ko ci yéefari anhu ca xuntima ba ñëw ba ca xuntima mënuñoo fexe fexe fexe tabaarakallaahu ba ba gis dara luy bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi sallam tabarakallahu ma nga ca xunti ma ak la ca xew fa sidqu fi lgaari wa siddiqu fi lgaari lam yarima <laughs> wa hum yaquluuna ma bilgaari min arimi da nga ko baax a baax lam yarima jooju nag tabaarakallaahu dañuy wax ne euh, ne alif googu lu fi indi du alifi tasniya maanaam du alif guy tegtale ñaar waaye dafay ñëw ngir taxaweekaay képp nag ndax lam yari man la woon ñu feddilee ko nun tawkiit xafiif waaye soo ci taxaw nun kiif gi nun tawkiit googu xafiif googu dagan na nga remplacer ko ak alif waaw comme la xewoon rek ca xifa nabki min zikra xabibi wa manzili xifan ma ngoog loolu la moo tax am ñu jàpp ne du tas nii nag foog nga bàyyi xel loolu nee na dëgg ga di yenent bi mi ngi ci biir xunti mi aji dëggal dëgg ji moom it dañul di nekk ci biir xunti mi ba yéeféer yu toppee tànk yi ba agsi ci xunti mi te mënuñoo gis foofu dara luy tekkal ne rasulullahi mi ngi ci biir non seulement lañu fa gis mooy fii nit sax waru fa mën dugg ndax gis nañ fa critères yoo xam ne bu fa nit doon dugg yii fi ne war na mën yàqu tas tàncar lang moo tax mu ne fa sidqu dëggu ga dëgg ga mooy aji dëggu ji di këñu dëggal di sallallahu alayhi wa sallam fil gaari ma ngi ci biir xunti ma wa siddiqu aji dëggal dëgg ja mooy Seydina Abubakar Saddiq moom itam fil gaari ma ngi ci biir xunti ma lam yarim lam yarima dañul di nekk fil xaari lam yarima dañul moom sayid abubakar di nekk fil xaari wahum ñoom yéeféri yaquluna ña ngay am fitu wax naan maa min arimin dit kenn di nekk bil xaari mi ndax fii bu fi nit nekkoon critères yi ñu fi gis dégaase na lii fi nekk yëpp zannul xamaama wa zannul ankabuta ala xayril bariyati lam tansuj walam taxuumi dégg rek bayaan boobu mu dugalaat foofu la kenn mësul dégg loolu ndax xam nga ba yàlla joxe autorisation sunu borom jox autorisation Moustapha rasulullahi dugg fa sallallahu alayhi wasallam ak Seydina Aboubacar dafay yabal bëri tànk mooy jargoñ yabal petax na bëri tànk bi def fa sa ay lëng hmm? tabaarakallaahu na petax mi nag tàgg fa nen léegi balaa gaa yi di ñëw noonu la fa demee axaamee bëri tàng moomu yéen si daana wax ne tahiru buyutakum min nasjil ankabut moom fa inna tarkahu fil buyuti yurisul faqra de <laughs> ndeysaan mag ñi moom duñ fi nekk na la yéen tamit ne eh comme yii lënd yeeg yooyu dara waral ñàkk rek lañ lay wax daal di ci génn mu gën gaaw hmm? magoog foofu boo xoolee saaru lafun wa nasrun musawis xew na foofu ndax lam njëkk a tudd li mujjee tudd la njëkk a wax lu fay dellu door di indi lay dellu ca lam njëkk a tudd zannu foog nañu joortu nañu alxamaama pitax ma dégg nga ko baax ne lam taxumi aarul yonent bi nekkul di naa ah, dégg nga maam di nenal yonent bi di ko aar foofu déedéet wadannu joortu nañu ba tey ala an ankabuuta bari tànk mooy jargoñ bi lam tan rabbaleeful ala xayril bariyee ci nga xam ne mooy gën di mbindeef ñoom loolu la ñu yaakaaroon kon boo xoolee wadannu ankabuuta lam tan moo fa njëkk a dellu zannul amaama wala zannul xamaama ala xayril bariyati lam taxumi wa lam taxumi wazannu ankabuuta lam tajsud dégg baam ala xayril bariya noonu ngay firee moo tax mu ne zannu foog nañu ñoom yéeféer yi ne alxamaa petax mi de walam taxu mi nenelul aadamul ala xayril bariya waaye wazannu joortu nañu al ankabuuta bari tànk mooy jargoñ bi lam tañ su rabbalul ala xayril bariya ñoom yaakaaroon nañ loolu ndax daal dañ ne bu fekkoon ne dugg fi daal yii war na mën a échec dégg nga ko wiqaayatullahi agna an mudaafatin min adduruci wa naalin min al utumi ma ngoog aha nee na musalug yàlla fegalug yàlla aarug yàlla doy na sëkk-sëkk bu la aarlee boppam téel la boppam yaay gën a aaru gën a ñoŋ koo xam ne dafa dugg ci pakk mbaam mu dugg ci tata wala mu dugg ci làqokaay wala mu takk la mu takk ba yaakaar ne mucc na te yàlla muccalu ko yow mi takkul dara te yàlla aar la yaa ko gën a nekk ci sécurité tabaxal ay soto dugg ci gasal ay pax dugg ci ay tineel yaa xam loo mën di def pour yaakaar ne mën ngaa mucc foofu bu la sunu borom aarul dama ne ki nekk ci biti te takkul dara moo la gën a nekk ci kaaraange ci kaw bu ko yàlla aaree. loolee lay wax ndax ndeysaan bayit bi dañuy wax na sax tabaarakallaahu boo nekkee ci àll wala fépp foo xam ne yaa ngi fay ragal daal ay sanri ndeg ment yeeg njaay àll yeeg yooyu aa ah, jàng ko rek mel ni lu rëdd rek ci sa cati baaraam mu wër la sob yàlla lenn luy tiitle mbaa luy ragarle bu ñëwee day mujj waax ci sa kaw sa kanam rek tus la mënul wiqaayatullaahi musalug yàlla aarug yàlla axanat doy na sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk am mudaafatin walis loo xam ne dañu ko ful tegle ko teglewaat ko min du min duruin ci dégg nga maam ay mbubbi koŋ nga tegle mbubbi koŋ yu bëree bëree bëri mooy mbubbu xeexeekaay mbubbeen yooyu nga xam ne jaasi joo ci dóor mu dellu fett goo ci dóor mu dellu nga tegle ci lu bëree bëree bëree bëri te yàlla aaru la du la teree dee de du pexe mu gaa yi pexe mën na agsi wana alin ak koo xam ne itam dafa nekk ci place boo xam ne bu yëkkatiku lool la minal utumi ci ay tata dugg ci ay soto yu kawe lool yaakaar ne foofu mën na kaa mucc te aarug yàlla nekku ca tabaarakallaahu du mucc gis nga yéen bi fi mu nekk ni mu jegee suufe lool gaa yi dem ba tiim ko te mënuñu kaa gis kon yàlla moo ko aar foofu ba tax gaa yi mënuñu si ci kawam bu sori nag nee na ku mel nii ba ma xamee ne am na garanti bu mel nii am kaaraange gu mel nii man dama jéem a dem ci moom rek làqu ci moom wax ba jeex ma saamani dahru dayman wastajartu bihi illa wa niltu jiwaanan minhu lam yudami nee na jamono te kat jamono moo yàlla seet kon nag jamono musumaa teg genn gottite benn tolof-tolof benn xat-xat tam xam na jamono mooy yàlla kon naka lay jël di ko delloo yàlla te yenent bi daf ne bu leen di ŋàññi jamono ndax jamono mooy yàlla hmm? bu leen di wax ne jamono daf maa sooyal ndax jamono mooy yàlla ah kon nag jamono boobu dafay aajowoo ay taawil mooy ki nga xam ne mooy aji soppi mbir yi di ko settantal wala musumaa togg ay jafe-jafe borom jamono kay ki nga xam ne moo koy jàllar bi ci nam ko neexee yooyu yëpp tabaarakallaahu ay déggin la ca ci maa saaba ni musumaa teg musumaa togg musumaa mosal addahru borom jamono te mooy yàlla sunu borom subhanahu wa taala musumaa teg benn xat-xat génn na ci biti benn xat-xat wasta jartu sàkkoonaa garanté wu bihi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci moom wax ko xat yi ma nekkee pour mucc ci illaa wa niltu laa gi kat du tax mu indi fu gurguru feddale pour dëgëral rek lu dul am naa jiwaaran ngën ji garanti mbir hu ci yenent bi saa sallam nga xam ne garanti goo xam ne lam ñu demee mooy maa nekk ci benn problème aduna wala benn xat-xat ba ma yëg ne yàlla nattoon na ma xat boobu lu dul ñëw naa ci yenent bi saa sallam te li ciy preuve sama feebar bi ci la bok sama feebar bi ma feebaroon ku ma ko tegoon yàlla mooy jamono moo ma ko tegoon tabaarakallaahu ba ma yëgee ne am na lu ma daal damaa ñëw ci yenent bi rek def tawassul ci moom yëf yu sotti ah lam yu dem yi nga xam ne deesu ko gotti mooy deesul nangu lam la xas garanti lu mu la xas garanti rek jàppal na loolu mu am na sécurité wér na loolu noonu la walal tamastu xina daarayni min yadihi ila stalamtu nada min xayri mustalami bu sayri ne mësuma genn koomu àdduna alaaxira fii nag innamal ghina ghaniyul qalbi la koom tula gu ñuy wax mooy doy lu xol alxanaatu kanzun laa yaf mooy doylu goo xam ne doylu xol waaye du ay bagages yi yooyu de waaye itam mësuma am benn koomu àdduna boo xam ne walla bu àllaaxira lu dul ñëw naa ci yenent bi wax ko ko su ma koy jox dama koy jox ak joxin wu ma sëkk nag walal tamastu musuma sàkku mukk day feddali boo gisee naf yam lu tax mu takraar ko jublu jug la musuma sakku mukk mukk xinat daaray ni doyloog àdduna ak àllaaxira min yadihi tukkee ci loxoom waafu zikrul juz'i la wa iradatul kulli loolu ko xam nga ko jàngoon nga loolu di xam nga loxo genn wàll la ci ci nit ab cër la dong ci nit waaye lépp la ci nam tukkee ci loxol sallallahu alayhi wa sallam ila illa salamtu dégloo mu baamuwaat lu dul jébbal na ma a nadaata bem googa min xayri muslimin ngën jig jébbal mooy musuma ut ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara dara dara dara dara dara dara lu dul su ma defee tawasul ci moom ñaan yàlla def tawasul ci moom yàlla fajal mo aaj yooyu te suñ koy faj nag dañ koy faj gën jaa rafet ci fajin gën jaa jekk ci fajin noonu la laa tunkirul waxya min ru'yaaw inna lahu xalban ida naamati l aynaani lam ya naami dégg nga nee weddi waxyu wax yu nag dafa am ay garaati garaat la cheikhul haaj malik si radiallahu taala anhu waxoon ne ruya kitaabun kadal ilqaau min malakin maratibul wahyi la tartab wala tahimi loolu cheikhul haaj malik jàngale woon na ko te sallallahu alayhi wa ba mu tollee ci min baadi tain wa laamin summa sitati ashurin raa kan fi laaki subi yahimi wallahu arsalahu lil aalamiina hudan wa rahmatan ismada jazbun bila wahami loolu maanaam ba mu amee ñi fanweeri at yu teg juróom-ñenent ak juróom-benn weer da gént gént yoo xam ne tabaarakallaa waaye nag bàyyil xel ne avant ñu koy yónni lu gént lu gént dëgg dëgg dëggu kenn du ko tuddee wax yu nag waaw gannaaw bu ñu ko yónnee nag ci 40 yi lu ci gént moom la Cheikhul Hadj Mali wax naa la doon wax ne garaati wax yi ñeent la benn mu jaaree ci gént bu la yàlla yónnee wala mu jaaree ci waxante wala mu jaaree ci loo xam ne dafay mel ni dañuy jël affaire bi rek sànni ko ci nu mel ni ab jóolóole buy yëngatu noonu la demee laa tunkir bul weddi mukk lu sa jàng rëy rëy ak loo nekk doctoral yi diplôme yi bari bëri bul weddi al wax yi ak déey goo xam ne déey na ko ko min dégg nga maam tukkee ci ay gént yoo xam ne mi ngi ko daan gént moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw min ru'yaahu tukkee ci gént yoo xam ne ah tabaarakallaahu mi ngi ko daan gént moom sallallahu alayhi wa sallam ndax lan inna lahu am na moom yonent bi xalban xol bu yaatu lool rëy lool xol boo xam ne iza naamati bu demee ba gëmmu al aynaani ñaari bëtam yooya xol ba moom lam yanami moom du mës nelaw de waaw xol ba moom nelawul tabaarakallah ba léeg nga dem ci téere yi sax ñuy wax ne bu fekkee ne xol bi nelawul tabaarakallahu kon njàppam moom du mën a yàqu saabu bu jugee rek mën na ca tabaarakallahu julli ak la yonent bi sallallahu alayhi waxoon yëpp euh, ci ci ci nu ci nu mu ci ci lële ci gént goo xam ne gént gu rafet la bàyyi ko ci waaju baax ci waaju yiw xamal ne xaaj la benn xaaj la ci ñeen fukki xaaj yi ak juróom-benn ci yenn ci riwaay yi ci xaaj yi nubuwa kay yenn riwaay indi ba juróom-ñaar fukk ak juróom fukk ak juróom ak yépp am na ca dégg nga waaye euh, kon xol bi moom su ne la wul rek jàppal ne ma ngay jàkkaw xadara yàlla ba ba tax na su yeewoo daanaka njàpp moom du war a mën amaat loolu kañ la mu ne wa zaaka xiina buluqin min nubuwatihi fa laysa yunkaru fiihi xaalu muxtalimi comme dama la waxoon léegi rek gént yooyu nag ak wax yooyu yooyu yëpp mi ngi ko am jamono ba mu tollee ci quarante te lépp lu mu gént rek tabaarakallaahu bu yeewoo noonu lay nekkee amul lenn lees ci mën a weddi kan fi laak subil ma yahimi waaw kay wa daaka gént yooyu ñu la doon wax léegi tam bàyyi koo euh, ci gént yooyu nga xam ne dañu nekk wax yu man ka ame xiina buluuxin mooy jamono ba mu demee ba àggi ba joti minan nubuwa ci tàngi nubu tàngi nubuwa maanaam toll ci 40 falay sa yun karu deeful weddi xaalu muxtalimi mbiru koo xam ne aji gént la fii bu fekkee yàllaa ko yónni lum la wax lu ne tabarakallahu xar-xaru doj la nekkul loo xam ne walis naa mën a taxaw daal di ko lin kaaraka weddi lu na nga cay dugg dee de tëddeewul noona tabarakallahu maa waxyun bi muktasabin wala wala nabiyin ala bi muttahami nee na yàll na barkeel wax yu nag loo jonge-jonge loo bëri bëri feem lu sa lonk gudd gudd ah nekkul lu ñuy liggéey pour am ko de kooku moom day yéeg rek min fadlillah waa annal fadla bi yadillaahi daal ci bunt boobu dong lay dugg nag moom jongeeg bëri pexeeg jaamu yàlla gu métteeg lu mu mën di doon en tant que wax yu la rek mënoo kaa amee ci noonu wax yi moom yàllaay xool ba mu neex ko rek mu jagleel ko ka ko jagleel te kañu ko jagleel it su waxee nekkul ku ñu mën a jam tuuma ca wax ja kay loolu foog ñu xam ko tabaaraka barkeel na màgg na foor na lool allahu sunu borom subhanahu wa taala maa wax yun déet wax yu mooy déey googu sunu borom di déey lenn ci jaam ñi di ko jaare léeg-léeg ci malaayika léeg mu koy jaare noonu direct bi muktasabin mu nekk lu ñuy fàggu de waaw nekk loo xam ne dangay liggéey pour am ko déedéet wala nabiya déet kenn ku ñuy solo ci yenant yi ak yenant bu mu mën di doon dàqam googu dafa ñëw ngir tegtale ak feddali kay amul benn yénantu bu ñu soloo bi muttahami mu nekk ku ñu mën a jam tuuma ala gaybin ci mbir yu fàddu yi waaw kay da cee wàññeek da cee yokk ak moo ko kereeg lu ne yooyu yëpp loo ci contour dem ba ci biir rek da xam ne kii du waxu nit ndax jàngoon nga wa ma huwa ala al ghaybi bi mhm. loolu jàngoon ko bi danin am na bi danin nag tabaarakallaahu mu ñëw ci kiimaani yonent bi la continué waat di ci laalaat aslëf ci mucjisa kam abraat wasaban bi lam wa atalaqat ariban min ribqati lamami ngoog nee na bëri na jàngoro joo xam ne dem na ba jaaxal nit ñi ba jaaxal seeni borom doktooroo doktoor ñu dem fa jàngoro ja të ba ñu ñëwee ci rasulullahi wax ko ko jàngoro ja wér kooku ñuy wax mu Muawis ibnu Afra keroog ba ñuy xare Badar ba mu jekkoo bëgg a utali Abu Jahlin pour dóor ko jaas ji Ikrama jaar ca ginnaaw wàcce loxo ba waa ji dafa gàddu loxo bi indi ci rasulullahi ne ko mu ngi ni wàcc nañ sama loxo te fi mbir mi toll moom ñaaw na rasulullahi dellawaat loxo ba mu mel na mu meloon loolu xew na Seydina Ali mu taf li ca bër ya keroog xaybar mu mel ne mu meloon xataada hmm? bët ba am jafe ñu jam ko ca rasulullahi ñaan mu dellu mel na mu meloon am na benn jigéen boo xam ne dafa ñëw ci moom na sallallahu alayhi wasallam sama doom daal biir bi jaaxal na ko lool ndeke booba bu fekkoon ne fii la ñu ne dëmm ko jàpp <laughs> ko jàpp ak seytaane ko jàpp ak raba ko jàpp ak ni ngay jéggi senegal rek yonent bi sallallahu alayhi ñaan ci rek tafli ci rek naka génnal li ci biir bi fëgg ko rek ab xalaw génn ci mooy ab kuti hmm? bu fekkoon na fii moom kenn mësul dégg loolu kon nag noonu mu doon faje jàngoro baatin yi xaw ma zahir yi noonu it lay faje jàngoroy baatin yi ci côté bu ne nag ci côté bu ne bu ne moo tax mu ne kam abra at bëri na bu hmm. kam abra at bëri na bu wéralee raaxatuhu tenqam loola xoolal wér gi wér ko ci tenkali waaye xaqiqatan kay xam nga kii wéral kan la moom koy xam nga àtte boobu na may demee wasaban jàngora bi si ci saabu laal goo xam ne salaasam laal na ko mu wir wa at laqat boyal na ariban aajo min ribkati limami lamami tukkee ci buumi bàkkaar yi wala min ribkati lamami tukkee ci buumu seytaane yi nga xam ne mooy jàpp nit ba mu wóor ne seytaane mooy jàpp kii ci buum yi mu ko yeewe tënku ko tàggale ko ak sagoom ñu ñëw ci yenant bi mu tafli mu jeex mu jeex min ribkatil lamami waaye itam noonu lay musale nit ñi ci buuma bàkkaar yi ñim daan jàpp ci xare yi daal leen jàpp ñoom it noonu la leen kon loolu muy ribkati lama bi noonu it la ko daan defee ci jur gi itam di tuug gis nga kéwél ga nga xam ne moom la ñu jàppoon yeew ko min ribkati lama mi tabaarakallah wa ahyati sannata sahbaawu daawatuhu ka xataa xakat xurratan fii aasuri duhumi màkka hmm. wala madinatul wara ba mu fa nekkee réew mu bekkoor lool lool lool lool ba jaaxal ñépp yenent bi taxaw ci kaw minbar bi di xutba benn aaraab yu jug taxaw fottasu yenent bi ne tekk ko xool mu nekk halakal maalu wa jaal iyaalu kon fadu laaha taala lana yenent bi yëkkati ay loxoom ba ñaari weex weexi poqataanam di feeñ ba loxo yooyu daan war rek taw ba ci pélu taw taw taw ba dëkk bi undane yëpp benn aljuma bu mu dikkaatee ka doon sàkku ndox ñëwaat ne ko ah bëgg nañ ndox nag waaye dëkk bi undane ba kenn mënutu jariñoo kenn mënu dem fenn fenn fenn kooku soxla wuñ ko rasulullah yëkkatiwaat loxo ya ca kaw barba ne allahuma xawaalayna wala alayna ma dundal na lu dundal mu ne daawatuhu waaw ngoon min baabi majaas de dundal na asanata ma ashahba bay aji weex tar arab yi dañ daan kinaayaal ci mu bekkoor tabaarakallaahu di ko nuuraleeg at mu weex tar tar moo xam ne gàncax amu ca dara amu ca dégg nga ko comme lu dee rek suuf su bekkoor nga xam ne kenn mënu si kaa jëriñoo mu nuurale kaag tabaarakallaahu at mi bekkoor bi suuf si ni mu bekkooree mu nuurale kaag lu dee rek waaw ñoom nag at mu bekkoor dañ koy ne ah at mi dafa weex tar gàncax amu fii ah dara dara dara luy naatal àll bi dal amu ci du ndox du dara xataa xakat dem ba nuru xurratan at ma na mu weexee dem ba nuru xurratan ci weex-weex boobu mu mel ni fii asari duumi mu nekk ci jamono boo xam ne jamono mbungu la mel ni fas woo xam ne dafa nekk fas wu ñuul am pelle bu weex ne noonu la at mi meloon ci tartar ki ci jafeñ-jafeñ <laughs> waaye loolu ndeysaan la waajo doon wax xajjaaj rek ba ko xajjaaj ne ko la ahmilannaka alal dégg nga maam aduhum eh, dinaa la boole dinaa la tënk ci jéng yi de mu nekk waaw xoola waa ji ni tourné wax yaay jàng xam bayaan xam nañ li may wax de mu nekk waaw nii la buur bu mel ni yow kay war nay mën a yabe ci fas mbungu kay war nay mën a yabe ci fas yi loolu moom sa teraanga la wala mu jàllar bee wax bi rek <laughs> yénent bi ñaan niir yu gaar moo tax mu ne bi aaridin jaada aw kiltal bitha biha sayban min al yammi aw saylan min al arimi bi ñaan niir wa gaar sotti ci xur yi sottee sotti ba dëkk bi yépp indi lii xew na moo tax mu ne ñaan na jaada tabe na bi aaridin ci niir woo xam ne aji gaar la aw xil te dem ba nga joortu albit xaa wulumbang yi muy xur yi bihaa ci sababu taw boobu nga xam ne niir yaa ngi koy sotti danga mujj yaakaar ne say ban na taw buy sotti ko danga yaakaar ne say ban yol ndele woo xam ne mi ne dem mi dafa bàyyi koo ci géej baatu yemmu nag géej lay tekk ci suryaani ya waaw mu bekk ci baat yi nga xam ne ah, tabaarakallaahu du arab yem suryaani la mooy géej dégg nga mu mel ni daal taw ba na mu bëree dafa mel ni géej gi daal nga ñëw rek defal ko ay rigol rek muy sotti ci dëkk bi aw saylan walla mu mel ni nde woo xam ne minal ari mi dafa bàyyi ko ci xuur ndox mu bëri lool tabaarakallaahu di yol di yol yol mu métti métti foofu it gis nga talmeex bi mu dafa defal di la junj xisa boobu nga xam ne mooy dëkk boobu ñuy wax saba saydul harim ba fa xam xewoon waaye comme loolu tax ñoo jug nag ne ko yàl banding tabaarakallaahu dafa mel ne xanaa war nañ mun taxaw noonu dafa mel ne bunt bi fa la yem kat man kat sama téere bunt bi fa la yem asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa